Welcome to Gambian Talents Promotion, the Gambia's first non-profit online public broadcasting network and home of culture and entertainment. At GTP, we bring you the best of Gambian creativity right to your doorsteps. Sell your products and services to millions of Gambians and friends of the Gambia via our online radio, TV, and newspaper. Advertise your business and watch your clientele grow like never before. Our content from the Gambia gets the diaspora hooked up to our screen, whilst those in Gambia love what we bring for them from afar. This gives us a unique edge and separates us from the rest. If you want to be heard or seen by the world, contact GCP. We tap Nurture and promote Gambian talents and businesses. Think promotion, think GTP. For all your event coverages, religious gatherings, naming ceremonies, weddings, documentaries, music videos, TV and radio commercial, and more. We also do design and print jobs of all types, logos, business cards, brushes, flyers, t shirts, coffee mugs, banners, billboards, catalogs, and magazines. We also do lamination and projector rentals. Our team of professional and dynamic young people are ever ready to serve your business needs. We are the first Gambian non-profit online public broadcasting network with over 300,000 active followers across all social media. At GTP, we build people. If you want to learn how to become a journalist, videographer, or media personnel for free of charge, contact GTP on 750 3654

Supersonics Money Transfer ñoo dellu si waat indi leen xéewal bu neex a neex fii ba weeri octobre di jeex waaw fii ba weeri octobre di jeex mën nga am sansu win benn saaku maalo saa yoo jotee xaalis fii ci biir ga andung ima sartol mafa pour ka demaro suto kabo man sakunda bulu na tare kole akole suto nu coronavirus jankaro natan isedde maroji ɗi ka fomu ye washington covid-19 immigrant relief fond nin i la application ola ibe kodo sotola men be siyala dola wuli kiliŋo ti ñiŋ maŋ ke juloo ti saka ka dontoro mi ye a loŋ i be a joo la le i la informationo seki kuuti mi ye a loŋ ko a be tankala le anno ñiŋ mu kuleti le ti ye a loŋ ko ku koyiriŋo le i la informationo maŋ ta cikala wo ñaama doroŋ ka di masa la walla i k'a fɔ min ye ice ñiŋ application o a te bali noo la pour ka kayito soto niŋ i lafita kayito ñiŋ la waato meŋ i se ñiŋ apply noo le walla i deemaaroo ñini pour ka apply niŋ maŋ niŋ ka kaŋo la ñiŋ application o be commencé la septembre karo a atil taŋ aniŋ kononto la 2022 saŋ kono ka taa fo novembre karo a atil taŋ aniŋ naano la 2022 saŋo kono ñiŋ application mu firii le ti hani feng ita jolaje ni lefta demaro sotola pour kañum application o keni mandiga kamala kumandiro ke wawa kla sain sain Angaduae, Musango Tata. cambia angolo. waaw musique I'm ma yàlla ma ko sédd rek soo gisee suma loxo yi def naa fitting ay motor mechanics five years loose and tight rek laa fa jëlee jëlee wu ma just loose and tight I'm waaye musique mom. The one who bread rek nekk master of arts loolu la am master of arts turu yàlla through Allah, you know. Because the guy, the guy, the guy, the guy, I'm master of arts. I've did it for several times, you know. And I'm gonna entertain some millions of people within one one hour together. I'm gonna mean. So that's not a So I think Allah uh, certain music drop. You like certificate when you draw. He said, Kalabaya, Allah, Chiba, I'm like, yooyu meen mm-hmm. so a ah, doon la demee fi mu nekk alhamdulilah alhamdulilah musique moom Gambia yéeme rek mm-hmm. waaye nag alhamdulilah. oncle <laughs> um, Moussa uh, balaa may ñëw fii def naa ay gestu laajte naa ñit yu bari bari kenn mooy Moussa Afia wax neen ma lu bari bari si yow waaye tamit dégg noon ne um, time boo bëggoon a def musique um, sa famille nanguwuñ toon loolu lu am la ndax lu amut. waaw su may famille ma def musique ñoom bëgguñ ko woon meen dégg naa sax am naa maam bu daan xalam nag mm-hmm. ko dégg because time ma ko waree laaj ci my parents fekk na ñu ñu laaxu ñu gaañu te ñoom rek ñoo ma doy ci dat question moo tax tiigan naa am na amoon naa maam biraan xalam waa di gaal waaye ñoom bëgguñu woon def musique atool atool dama daan laaxu di ko def bis ma papa gaañoo nag on di sori 1972 ci laa am fit di génn eh, waaye su ma demaan Kasak sax Samba Soxo soo ma ñëwee gars yi ma mete non ma mete daal because of ma dem kasak <laughs> xam nga rek dangay waaru daal ñoom dañ foog ne musique soo ko doon musique soo ko doon rek yàqu nga mm-hmm. moo tax ma woyal la woy ma la wax léegi waaw mm-hmm. ah, bala jigi mu sax ñu mm-hmm. yaa ñu war mbaar njaay am say lenge ma tontu bisimilaay bisimilaay kasak laa doore doon raam di jéem tey mu doon enu bés bi njëkk dama woy feeñoo ci bésu keroog la ma yaarama xool jooy defe ne yàqu naa fekk yàquma ma ne surtout loolu njañ bu géntoon ne bala jigi doom la konoon mu kontaan woyaa yooyu njureel bi moom alhamdulilah ba nga koo def waaye dugaluma ci benn banditisme daal ma koy def ama am famille gis nga non la koy wax rek benn paa mus na ma koo wax ndeysaan nekk si dafa oyoon famille am dafa gisoon su may wuy dama daan guma ak yooyu mu wax doomam yi yëpp ne man daba man du ma lay xippi xam nga du may xippi daal man ci drogue drogueur la xam nga ah ma dem tëggi dëkkaam bu ma wax dëkk bi sax dafay na xam ma dem tëggi dëkkaam man ma ma julli ba pare di wir la ñu ñëwee dafa tiit bu doon ci bunta bi baalal ma axa ba egsi ne ko baalal ma axa ci mhm. man dama foogoon wax dëgg yàlla yow doo doo xool sax rek ma suma profession la waaye yow ah, dama lii suma suma suma liggéey la nag suma ma fecce ba jiitu naa ko def mhm. mhm. rus bi meen non lu ma bëgg dëkk bi kon na fay xam ne moom la. Mm-hmm. bu dee mu ngi dund yéen noonu. jaar naa fa ak kenn ci jaar bi mais <laughs> waaw. Fatou Samba Birame. all right um, um, ñu ne ku am. Um, yokkute am na li nga xam ne tamit yaa ko doon jànkuwanteel si biir musique bi yokkute bi yëpp am na yu bëree bëri yoo doon jànkuwanteel maanaam sa challenges am doo si mun a may tuuti. تشيلسي من افريقيا في افريقيا لا شكو قاعد هو هي سو سو بري وزا قاعد بري دانو ساكو I'm going to mean because some people, when you say the black art, is very wrong. It is my latest release with Soldar. I'm not going to accept my Soldar. maa ngi koy wax ci benn song Africa pour ñu bàyyi liggéeyante bi xam nga bu ñuy tërreel la waaw fighting is too much mm-hmm. te nit ku ñuul ni muy xeexee euh, xam nga loolu laa wax ci gaal gi dem na géej am na suma benn morso gaal gi dem na géej gaal gi dem na géej soo ko déggee maa ngi naan dëgga dëgga lii mooy xam-xam noon du gis bi xam-xam bu du doon taal plane du ma naawal nda kon dinaa liggéey lu gën a màgg avion lekk tamay naawal te duma fay ab dërëm waaw because maam yi niñ ko daan defee dañ lay suñu la bëggee corté gunóor la ñoo yónni ba Amérique gunóor def ko ci téere mu dem be Amérique def jéy léegi suñu set yi ñu ngi bëgg a tukki visa da leen téye dem baaku yi xam nga loolu is laziness moo ñu ko indil understand su fekkoon ne xam-xam bi amoon nañ ko doon dimbalante kon di am daal ay Afrique ñun dañ soxor yaa wicket parce am nañu xam-xam felicidades. salaamaaleykum Gambia sant yàlla di leen ñaanal di ñaanal ki nga xam ne nag mooy aji jiitu ji nga xam ne euh, Gambian Talent saa su ne dañuy jóg di wane li nga xam ne nag mooy Musa Afia Ngum liggéeyam bi nga xam ne liggéeyal na ko Gambia waaye liggéeyal na ko Sénégal waaye liggéeyal na ko àddina si yëpp tey suñ toogee ba dégg musique Gambia si yeneen yeneeni place ku mel ni Musa Afia Ngum euh, jar nañoo delloo ko njukkal. bisi tey bi di october 11 bés bii la génnoon àddina 2015 Musa Afia Ngum nekk artiste boo xam ne artiste bu xarañ nekk artiste boo xam ne nu ma koy waxee rek Euh, soo déggee Gambia soo déggee Banjul soo déggee li nga xam ne nag mooy Gambia ak ay ñoñam Moussa Affe Ngom moo tax tey ñu dégg ko kon nag Moussa Affe Ngom la jooy Moussa Affe ngay jooy waaye manit moom lay jooy kon nag àddina si moom la jooy suñu Moussa dem na dem na dem na dem na waaye dinañ génn waxtaan ak ay njojam laajte leen kan mooy woon Moussa Affe Ngom mu nekkoon jàmbaar si jàmbaar yi Balla Jëme Seen ak Bakara baax koo xam ne seetu Gambia la Moussa Ngom maa ngi door di ànd ak moom 1975 76 maa ko daan dëggal xam-xami nit ku ñuul fu nekk laa jaara moom am lu jiitu loolu njome njañ lool li njañ njome jur tafsir demba mu jur màkki suma baay lool li jur sëriñ mbaylaar mu jur ramatulaay ñang yaayi Moussa Ngom suñ ñaari ma mbokk daya nag suma xarit ma yàgg koo xam ci musique ba dara du dara ñu bokka bokka ngewel gi bokka aar bi circulation lamp faal c'est la taalibe c'est la taalibe Moussa Afia Ngom suma yaaya bokka ndey ak baay suma caati ñoom yaay bu góor man suma nijaay la pare moo yar moo ma dugal ci musique bi waaw ñi moo nekk Sénégal yëpp maa moo ma fa nekk kon ham. nga kooku xam na Moussa. Moussa suma rakk la. bokk naa ci li tax start play music most of songs yi mu daan woy maa binda I taught him to sing songs most of them that's a fact he was a very talented artist. Ubala very open, honest, good at what he was doing. Uh, uh, he jam. He decrees as he wishes. That's all we're waiting for. Muslim Afia Musa Ngom Badola du deg njowan banu koy joow muy joow waanu dina xom mbaay boo demee nga ni Musa ñu ngi koy jooy ta noppee guñu eh, Musa Ngum nit ku baax la woon taalibi la woon nit ku baax la woon taalibi la woon macha allah te ku mën a woon a way waaw nit ku baax la kon bu fekkee ni génn na génn na àddina ñëpp dinañ si am naqar waaw keroog ñun ñëpp dañ am naqar we wéetal yoo ñun wéet nañ we wéetal yoo ñun wéet nañ joole leñu Musa Fiangom dem na sangom moo sama papa ko ndeya baay Musa Fiangom ñanoon naanaan bu mag ci biir Gambie fii àddina bi xam ko ñu ko ñaan yeen ko yàlla xare fi nañu bi liggéeyante fi daf la won ñu ñi wéyee Moussa leeral ñu fara dal li la wax ci mom dal suñ ko bi fara ya. oyofna na tabena fara dal li pang ci mom dal fara dal jiko waliw la yor ya. mo suma ay maam jome ngom ñoo bokkan ak meññee si Antouma Ngom ak Ramatoulaye Niang sama yaay dem na item sama rakku yaay dem na ndar sama baay dem na tool sama rakku baay dem na tool xale yi jàngi nañ ñi naan ba rootina Moussa Afia Ngom moom du ma artiste sax waaye dama ne Gambian nga xam nga ko ku nekk Gambian tamit xam nga ko ci eh, si eh, music mu nekk tam because eh, nekk na ci ci field nekk na comme liggéeyam ci film bi bi nga xam definitely ñepp ko respect ko ci bugga ko ci man mom dina wax ne ñun eh, lokki naa ne ak mom stage eh, invite na ko suma programme suma anniversary naka alliance franco mu bay soxlam yépp mu ñew goudi bi bokko ko ñun sound bi betay ni nit yi play definitely fa liggéey bàyyi fa gars yi gëm ko xam ne Gambia la jógee bot uh, at least bàyyi na fa uh, loo xam ne daal kenn du ko fa faateeti te loolu jàng ko man ma personnel jàng naa ko si moom ne nit ki daal lépp loo xam ne yaa ngi ko def danga ko war a gëm Banjul Banjul Banjul yeah well the late Musa Ngum I think I uh, grew up um, knowing Musa Ngum because of his good music and his love for Senegambia songs has always something to do with the society, and it was very important for us to to to link ourselves with those lyrics because um, he was always striving to make the society a brighter place through his good lyrics, um, through teaching, preaching the people um, good manners and um, way forward to, to the life we are living. So it has really done certain things, many things in me. Uh, yalla burla nit ki mbor la so yeb so amé alel amo banex waaw ba musa nak euh, Balla jeme sen lima wara war wax ci mom bari na ndax fay sun papa di sun xarit ndax euh, mom mun naa wax lim def ci ar yeb mom ak sun wajur bu gora ko def euh, Alaaji Baro Mbay man maa fatale ko bi ñoo nekkal lu ndaw man ak fa maire ak Pa sun dan practice yi na dañu daan yóbbuwaale bobu merenge nge awu pa Moussa suma banko tegal maa fatale ko ñun ci perong bi la ñoo tok ñom ñu nekk ci salle di practice ah, muy lo xamne lu yag la ba pare mu def ak suma pa lu bari den dan tok ay weeks ñun ñun xalé yi rek ñoy nekk ci kër gi suma pa ak ak pa di to nekk ay to nekk ci greta Banjul be yoyu kon ah, foog naa ne moom ñun so gisee ñu xam mbiri artiste xam mbiri ay artiste buy dem ay to bay sa njabot gannaaw ak lepp foog naa suma ba ànd bi mu doon ànd ak ba Musa nañu am si experience bu bare bare bare bare tey um, eh, su ma doon wax si Musa Fengom suñu papa boobu noonu dina um, nekk something li nga xam ne it's um, pa bu tabe la woon ku bëgg njabootam ku yërëm njabootam bëggoon ku bëggoon doomi aadama la te ku ñeme woon a joxe ñam la te um, bëgg na la ba nga foog ne sax daf la ragal en tant doom neewoon ku nekka ku neex a doon waxtaan ak doomam yi comme ay moromam nga uh, doylu ak taalibe in a sense ne uh, nu aduna demee soo doyloo rek um, yu bëri di nga ci noppal sa boobu waaye déglu boobu noonu balaa nga ko mën a am fa nga am taalibe taalibe tamit lu am solo la si doomi aadama te nekk na loo xam ne comme nu sangam ku ko am xam ne borom mooy borom akasa te suñ ne borom akasa muy ko am taalibe amuna na taalibe bi nga xam ne ñun ñëpp daanaka jàngee nañ loolu si moom bi nga xam ne waaw moo tax yaa ngi mën a content tu loo mën a am rek si àdduna sax na ajëb jël Semuanya bernyarion, lain way di way di way. Wa Musa Afia Ngom ñun den juddu xam ko. Ko siyaara mayoon na ko daraja, mayoon na ko bayre, mënoon naa wëy. Sunu yaay ak sunu nijaay noo ko daan bëggee. Ba ñun nu juddu fekk si mbégte boobu. Yàlla tamit nu mag yàlla boole noo moom. You know, so mun naa laa wax ne it's more than 30 something years Mohamed Musa Ngom ak léegi. Gani bololen, Gani leen Gani bololen, liggéey Gani gaa Amanna boloo leen kon nag gaa ñi liggéey leen Limeti na jamono li sunu maam ni def nañu ko kon men leen ànd te te sito gaa ñi boole leen boole leen gaa si liggéey leen. waa xam nañ Musa they know him for who he was I mean artiste bu baax la woon lañ war a def rek muy Musa muy beneen artiste bu fi jógee Gambia mooy undi dëkk bi nga xam ne orma luñ aat comme yeneen dëkk yi muy Moussa ñoom Pape Touré ñoom Ali Hab ñoom Malandou Gassama na Gambian artist yu powerful ñu gaañu parce que never were here waaye nag loolu ni mu demee la foog ñu understand ne art is a very important aspect to our civilization akasa loolu jox nga ma rek ma fàttaliku kàddoom yi niñ ko gënoon a muy akasa Moussa Afia Ngom artiste la woon xakan ci biir réew mi dafa juddoo ngéwél yaroo ci ngéwél magee ci ngéwél ba yàlla defit mu dee ci ngéwél dafa nekkoon an icon ba pare sax mu bàyyi gannaawam ay ngéwél sax fàtte naa ci aat kon dafa doon koo xam ne dafa transpire li nga xam ne rek ne moom la nit war a ci moom nga doon géwél nga mag ba dee ci ngéwél ngay bàyyi ay njaboot ñu doon ay ngéwél tamit kon ba léegi sax ay ci bi muy move di dem on kon loolu mandarga bu saxaw la Moussa dafa toppoon magam ci groupe yi ñoom magam mooy ñoom Abdoulaye Kabir Ngom ci seen biir la màggee ba jànga bañ ko ekkati jokko Mike Mike jooju mu yor nag mu liggéey ak ñoom def so many pieces ci loxo gelewaar ba yàlla ñu def mu move on to a solo dem join senegal sax bam gisee ne foofu la carrière am gën a tabe gën a taxaw fa lañ ko gënoon a jël mu taxaw te ba pare mu ñëw nekk nekku duutoon ku controversial sax dafa ñëwoon ku am his own niche muy taxawaayam bu uteeg li nit ñi am muy ne moom Sénégal bi mu gis ak fracturing bi mu am gis noonu muy taxaw after confederation bi mu jël ko gàkkoo ko mu doon one of the artists who celebrated and promoted this bi diggante Gambia ak Sénégal mu amoon na benn fashion ak even design bi mu génne woon boo xam ne ku ko gis rek You know what I mean? Uh, sa ak xopoto yi yére yi moo textile Gambia ak fële so loolu yëpp moo di impact di wone the impression about Sénégambia Musa musique am dafa law ba ci biti parce que of dam ne ah, wolof dañ ne wóy bu diglewul xamlewul bu terewul yeetewul doona tuy wóy ab la busaan nag woyam danga cee jàngee daf lay jubal daf lay teg ci yooni siraatal mustaqim daf lay am loo yërmande message la is full of message Musa woyam dafa law ci wool bi waaw foo dem fekk ko fa Musa Ngum dama ko daan fekki PWD transport muy liggéey mécanicien fi tala woon su wàccaan school dem seeti ko mu jegi mu ne ma baro lii du ma ci continuer suma loxo yi du dóor nit te du pour téye marto ak ay kële wis man woykat la suma loxo bi microphone na xam loolu ci seventy si la ali yàgg na mu nekk nit ku baax koo xam nit ku doylu ba pare aar bi daf ci nekkoon te aleel tegu ko ci woon ba pare boroom xam-xam bu rëy wallahi Gambia waruñoo jéggaane ci wàlli wëy ak aar fen ndax ñu ngi ko am Gambia gi Moussa Ngom li mu wax ci musique lim def ci aar ci Afrique fii ah su ma newul mooy ndomba wanit mu ngi ca kaw a lim woy su ma ko buggee lim fii la fanaan dafa bari ndax ñëwuñ fi pour jataay woy waaye de kon ma wax leen ci lu bari mu ne poti ndaali yàlla yi ëppante wuñ waaye couleur yaa wuute bu sa bët weexee rek sa couleur réer la loolu nag dafa junj lu baree baree baree bari di ko ñaanal yàlla barke Seydina Muhammad fam nekk tinal ko fi mu jógee waaye jàng naa lu bari si moom jàng ngum doylu gum boppam loolu moom jàng naa ko si moom Musa nekkoon daanaan boo xam ne fi mu nekk lañ ko doog a xam nekkoon daanaan bu mag nga xam li moo def te roy ci kenn dafa amoon mbiri boppam moo taxoon Sénégal bi bugg ko àddina bi bugg ko ndax looy def gum si sa bopp rek ñu dañu see fekk Musa noonu la meloon Tunai yu bari ñu koy aw koy aw sama jëkkër di ko tëggal waaw ah, allah waaw yàgg ya nañu ànd ak moom dem ay tourné dem fu nekk waaw ñu koy aw nit ku noppi nit koo xam ni amut sax wax soo ko fekkee mu toog sa comportement am doo foog ne waykat la ah ndax noppeem waaw Moussa Ngom eh, lu ma jàng si moom bari bari na because of mako ba daf ma daan yónni time mu ma nekké xalel ma daan jëli ji gerté saaf di len because of bu njëkk ba ah, magi dañ lo won gerté saaf torop togon ngon ni ay day time ni, di lek gerté saaf ak mbuuru ah, be laki nongo bi sax ñom alaaji mansour di la wax ci lé lañ ko dé oyes laki nongo xam yo do doo xam loolu <laughs> Moussa jànga ci mom moy mooy ah, affaire gis nga bu bari daf daan tagu mbar because of dini islam dafa wax né doomi julit ah, soo juddoo before ngay def anything danga nga war a dem góor néegi góor soo duggee néegi góor ba pare si lañ laa door a dugal alxuraan soo duggee alxuraan ba pare jànge daara ba pare si nga door a mut pour dem a taakaan nekk daal loo bugg doon waaye foog nga dugg néegi góor te néegi góor googu noonu Musa Afia Ngum moo ñu ko doon wéyal ñun xale yi ñu ko óoba xam mu naan tàggu naa maan njaay tàggatuma mbaa njaay suma yaay dem na ndar suma yàkki mbaay dem na ndar comme wéyum daan wéy noonu so Musa, amna lu bari ñun luñ jànga ba pare musa su fekke dañu wo xam tay fi duñ fi joggé because Musa dafa du lot si all over the globe all over the globe musa dafa du lot li ma jàngal ci mom bari na wana la na musa so toge mom ben uh, two minutes di nga jàngal ci mom yermande amna bes ñu ngi tok fi ci gannaaw ñu ko wat nel bu es xam nga nel ñu ko wat ñu ci gannaaw fi suñ benn mbokka bu dëkk ci kër gi doomam bi nii la em xale la mu ñëw xool Musa ba sàppaliko rek dóor loxoom bi ci nelam ñun ñëpp ñu mer mu ne bàyyi leen ko bu ko kenn laal mun naa am su fekkoon ne dóoruma ci boppa de teppiwuma ni kon leneen mooy am ci suma bopp xam nga kooku xam nga fi mu nekk génération bi nii su xale nii fekk la nga toog mu mbej la loo ko def hmm? mom nak daf ne bu ko ken laal waaw parce que yalla moko yoni pour mu fanxali waroon a ñëw waaw Moussa li nga mëna a jàng ci mom bari na dafa bari torop sa dafa am ben bi sax nit ñëw muy dépassam nga duggal ci ne amulo sa njabo da nga tok mu génnee jox la ko nga wax ko mu ne la gala say dawal sëñ fallu nga man Moussa li ma jàng ci mom dafa bari toge mom rek Moussa lifil armela, la moo ngay gis muy woy kasak parce que kasak mbar dang fa jangé comme camp la dañ lay jangal ak so fa génné war nga am yar am teggin am respect fonka say waajur waaw man na man nag kaayir sotes sénégal ak gaame yëpp wi sama dañ def lu bari together ku si nekk suma friend rek baaxuloo because I know I'm not difficult ku ci nekk rek baaxuloo xam naa nag ñëpp duñ la mën a nekk ñëpp duñ mën a ànd nekk sa ci nekk suma friend rek baaxuloo pour man non because man dangay waaru amoo benn problème moo tax ma dem Sénégal di ko fa easily xam nga Sénégal si dee laaj mi ma I'm proud to be a Gambian. waaw li ma mën a fàttali ko si moom bari na waaye mun na seet benn mooy lim doon dox diggante Sénégal ak Gambie pour Sénégal Sénégal ak Gambie Sénégal daal dox tànki jéego pour Sénégal ak Gambie nekk benn ne moom foog bokkuñ benn président benn nit jiite ko moom du musa wécci daalaam yee kawasami waaw Fada moom li ma a fàttali ko ci moom yooyu daf ma gën a marqué. yooyu moom bokk na ci bi because kii dox réew ak réew pour ñu nekk benn te ñëpp xam nañ affaire yi réew ak réew suñ boodee léegi-léegi yu sew daf fa dee duga waaw so moom ida even benn time bi Sénégal ak Gambie di play ba mu nekkoon problème boobu fii ñu dem ba foofu noonu asta ma ne ñoom nee na jàlloo fii euh, immigration ne leen nañ leen dem sayti fada <coughs> ñu dem seeti ko buñ demee seeti ko balaa maaj bi di dor li mo wax mooy mu ne ma laa xamee man man dal liñ bolé Sénégal ak Gambie gambie ni pour ñu ma neexuma because diggante ñaari réew yi waru leen bolé ci si ka ne kaasa waruñ woon di nangu yi te gis nga lim ñew prédic fofu la ñëw bujé problème la bujé amna ben anniversaire bu mu last def eh, eh, jaama xool ma dem fa time bu Sandeng mu ngi woy ñu Sandeng the next day mu call ma. dafa wax he said a lot of things you know encourage diñu encourage you uh, digal you advise on what to do on how to handle some career sama dem na sama dem na yaay Play a jankinan, oh, oh, and Pinan Vaina Samasali, some the gate I build him of legend really dictionary you know Musa, we have lots to learn about him ba pare war xale yi war nañ di gën a mën a jàng si moom si fàttaliku bi def nii tey you know Musa Ngum lu ma jàng si moom euh, mooy humanity ñite humanity you know euh, oyof xam nga su ma nee ñite nag tënk na yëpp te Musa Ngum ku ñite la woon ku bëggoon doomu aadama yi la ku amoon cofeel la gis na tamit euh, njabootam nekk njaboot goo xam ne suma ma sañoon eh, damaa ñaan ma tamit suma doom yi màgga bi mel ni njabootam doylu ak macha allah gom yàlla Moussa Ngom dañ naan ànd dañoo ba pare xaalis bañ am fiñ ko konte bugg koo xam am na suñ benn waaye juñ Moussa jox xaalis bu bari pour bu wër senegal diggante Sokone dem Kaolack ba Pambey Kaffrine pour mu dem organiser dëkk bu nekk fañ war a pilee fay xool yi ak yëpp waa ji dem lu mut wan wik dellusiwaat ne Moussa Ngom yëpp nooy na wër naa fépp na naa talukaay yeeg hôtel yaa yëpp delluwaat ndeke waa ji dafa bu ñu àgg rek suñ ne jameet ca borom dëkk ba dañoo tiit sax suñ leen ne programme bi fan la ak fi ñu war a wàccaalaat mu ne ñu nañu ñu bañ programme kerek moto bi jël dañ wër Sénégal yëpp dellusi yàlla def ñuy dem doo faan ñëw ba gaaraasi ñooro Kaolack waa ja ñu defoon loolu toog rek am ci biir val de ku ku yóoxu ne woy diw sàngama la ne ñu jàpp ko jiital ko ne police ke rek bu saagum daf doon jooy di ñaan bay téye suñ takkay ne nañ ko bàyyi nga xam ne kooku nit bu baax la suma xol fees na bilaay mënatuma wax ku am diina la njëkk ku am yërmande la ku bugg a la ku bugg a familleem la Moussa duy soo meree sax daf laa neexal kon xam nga loolu jafe na ci jamono ji ñu nekk nii Moussa am na yërmande musa dal na Moussa tey na Moussa jullite na Moussa bugg na njabootam Moussa bugg na familleem Moussa bugg na Sénégambia bugg na Touba boobu mooy force xolam waaw. ñu toogaan ni si may ba mu ma xam ne dañ gaañu woon ñu yàggal. moom du wax waxi mbir bi soo toogee moom ni wéet ñàkk a wéet Musa du wax waxi jàmbur Musa du mere ku ko nul si famille bi rek moo am doom mu toogaan mu ne ma xëy léegi de doom bi ñu wax si seex te liggéey QTV noonu rek la ma dee ooyee su ma ooyee noonu su ma yaram bi dee daw ba bëgg a dee ma ko dama delloo gannaaw የእነሱን ላይ ፋይል ሲበረክል አንሴህ umi sofir maa ngi di ñaanal kontaan naa si ñoom torop suma toogaa mu ne ma xam nga doole xam nga kuy doole faada mu ma doole doomi maa ngi nus la woon mu ma xale nga mu mbay géej dina ko war a xam mu ne ko digal la doole mooy paa maa mun ne la xam nga diw sàngam ñooñu dañoo gaañu bu yàgg mu ñooñu rek laa waxtaanee nii la mel noonu nii la mel noonu nangam nangam ñooñu rek laa waxtaanee nekkoon ku baax kum boppam kon ma soo góorgóorlu dina baax fay léegi da nga war a ñeme mu ko faada man dama dee rus nu ma waa am na sax waaye de ko tegi teg ko fii ma ne ko xëj na noonu dama yàlla bindee waaye mënut a denc man nu ma yow sooy wéy yaram daf dee daw soo ñemee ñuy tuuti rek. dina baax lii def ma ko daan edda bu baaxa baaxa baax a baax mu nañ def bu bare bare bare bare ñaanal rek waaw ah, pa Moussa nag dama naan eh, eh, xam nañ koy Moussa afiya Ngom ndax eh, nit ku ne Seydina Muhammad sax bañ ko waree xam diga dafa gadaye Màkka dem Medina ñu gën koo xam nit ku ne xëj na li la gën a jege sax dina la jege torop ba doo xam li valeuram waaye Pa Moussa dama foog ne sax jàmbur ñee ko gën a xam than Gambians yi because su la óoree ne everyday soo génnee gis Pa Moussa wala soo génnee gis benn abu ak faafa mu jege la lool yomba la lool xëj na seen ndaanaan ak seen woot xëj na yow sax dina la xaw a dina xaw a foot ci yow waaye ñi nga xam ne ñooy sori ñooy gën a xam ne kii ndaanaan la te ñun ñi nga xam ne ñun ñooy ay artistes suñ génnee ci biti foog naa feedback biñ dee gën a am sax ci jàmbur ñi ndax duñ ñuy faral di gis lu bari ndax fu ci melni ni gi sax suñ ne abu ak fanyun ñun dañ ko bañ sa dañoo nubatu suñu fa déggé ku nekk nañoo interview ku nekk bugg nañoo am ci sa platform na nit ki always rek li la jege torop doy xam valoram waye waaye pa moussa fay ko xamné ah, his what to be celebrated ndax ko xamné la ku taxawal Afrika la ku gëm bopam ci li mo def dafa bañ ba dem amba moussa li ma gën a ne ci moom mooy ne li la intégration bi mu doon di te ko because newut ne dafa oote rek dëkkoo ko wonew ko waaye daf ko génnee ci biir woyam yi so sete di lyrics yi moo di mambo si moo génnee ak woy yi most of them they are even oral traditions from both Senegal and Gambia ak lepolumwe, it has to have a cross border issue which we imply about integration loolu dekkal na ci li ma si jofal moj ci mbiram dina woy the cultures of Senegambia au Gambia au Sénégal te lii mooy woon centerpiece am te ba pare moom liggéeyam yëpp ci lii la bisoon te ci lii la newoon all the time kon Moussa même bam demee sa mag ñu bugg a koo jëlee biir Sénégal ñu teg ko fi muy widdi den euh, former président bi pour ñu tege ko fii bam ñëwee munut absorb ba léegi ci biir réew mi as such because xol baa nga fees ak lam nii noonu lam eh, jotoon xam biir Sénégal sax xamatu ko woon biir Gambia te fiyee woon route sam waaye taxutoon mu bàyyi woon fii because njaboot bi has always been in here so they've di the cross diggante googu noonu Gambia ak fii ñëw so waaye potentially the bulk of his work ak xiiraayu liggéeyam bi yëpp li ci ëppoon yëpp mu ngi ko doon defee biir Sénégal. kon lolu Johon nañu a very good bridge li nga xam euh neexoon na ma ci lool pour mu woné this integration bi dal Gambia ak Sénégal lolu ben bu ma ne am Ngom sa way Gambia ñu xamul bari na dé non non non non lu lu lu lu euh la eh, kar kati sosé bi day wax rek ne naka comme ma généralise ko né Gambia mi nga xam nit bu baaxam nga su dé déggal lu mu fi nekk euh, Moussa Ndoye moo ñun xamuñ ko tuuti sax because damaa ne soo gisee ma ne ñun xamuñ ko tuuti demal senegal fu ko gars yi di réet ñun réetuñ ko quarter of that sax you understand ñooñu ñooñu ko gën a xam sax te du ma ne ñooñu xam nañ ko tuutale because gis nga an artist kenn mënu koo xam ba jeexal only li nga xam rek loolu ngay loolu nga de jàpp si moom because artist la mu ngee dundal life am ba pare mu ngee dundal life fi artist these are two different personalities these are two different identities xam they are two different in everything because nekk nooy behave ak sa family ni ngay dundee sa level ni ngay dundee a sa diggante sa borom sa sa or that level is different from me I dundee ak sa fancy a sa job and everything I understand so do dama wax ne comme ñun Sénégal ñoo ñu ko gën a xam Gambia loolu I can raise my hand and say that because respect buñ ko jox gidda buñ ko jox xam artiste doon fonka ko definitely and you know I wish na ñun tam ñu gënoon na uh, yaatal gën a xam lu bëri si moom you know Filo naa ne amoon na lu bëri lu mënoon jàng si moom but unfortunately he has the Gambia suñ dëgg woon faada digga man dama de tooga ay ñeneen comme ma téye yéen a wéy faada di ko wéyantu nii te fekk sa dem benn instrument wéy faada bi nekkul on dañ ma day biréeg ne kon faara li la doon wax su ma ne yéen da ngeen tarre kon yéen lu faara doon play yëpp yéen gule woon di déglu waaw lu mel ni artiste du daano bi ne yàlla buur la nit ki mbur la mbur yaa ka jafe mbur aboowul si bëri mbur yaa si métier ci sa métier ngay doon mbur sa ndam feeñ ndam bu ànd ak bànneex yow miy dundal boo amee alel amoo bànneex njëriñoo ko jafe turi mbur ci yoon dafa rëy pour bëri bëri birim xeex la xeexal fam la waree katan ci ku way ngay nay la pour say non ñu bari xamuñ woon teg bu fa faara teg yëpp ñu bari xamuñ ko won ya ngi am benn tragam tam kum ne waxe ne soo baaxee ñëpp lay jox nga bon say ay na mu ne barki demba amna kuma ku be ma ñew mu nan ma mu sangom nga bon du mu bax du gu yété la islam ko jité ku bon gi na nga ca way nga bugg bon society la iblis ko jité ku bax gi na nga ca mune bax bari bañ nga bonit bari bañ baaxal te bari bañ mu wor xari lula waji def ba tax nga diko bañ loko bañ bañ bëgg xam nga faara dañ ko wona deglu dal daal faara mi du gambie rek de senegal senegal nañ gëna deglu a waaw gambia moom dëgg dëgg dëgg nañ ko waxte rek dañ té faara is a fara ambassador la indi music no i would say no because if they were knowing if they know musangom they will not let what happened happen. You know, they will not let Musa being in Senegal for so many years because of it, it, it's very easy because somebody when he is doing music, okay, and the music is going everywhere. Okay. Wherever the fans are showing more love, frankly speaking, that's where you're gonna focus on because of the love was more in Senegal than in Gambia. You know, we have witnessed an anniversary done by Musa Afia here in uh, in Jama Hall, Taraba Beach. We were part of the guest artists who were there, but the turnout was so so like I couldn't say it, you know, and it could have been something that could have been way better than that. Musa mom babi mo wajal lakhudi dañ tok ma mom Senegambia nit ko jank te am na Mikaël am na Kaa Yusufa doomam yëpp ay ndaanaan lañ ba ci caatam mi gën a ndaw waaye daf ma ne baro yow li nga xam ci man yombut ko ko ci xam lu mu mës a rek xam nga ci dara mu ne ma lu ma wéy rek jox naa la ko tey jox ko Abo Fafa lu leen neex nañ ci def Abo gi di wax naa leen ko muy nit ku baax ku xam musique ku yàlla mayoon nag xam-xam wallaahi. te Moussa Ngom li ma la wax rek li mu wax ci musique bi su ko gàmbee déglu woon benn woyam bu nekk rek ñëpp jëriñoo si Moussa Ngom bam naan Afrique teylu leen Afrique diisoo woon na booba du tey mu ne ndegem yàlla dafa def ci ñun ab xam-xam bu suñuy ca la naan seet leen ci or beeg jamono bi te der bu weex bi jël ko féetale ko boppam tey di ñu ko xajaane te xam ne Afrique moom. kon Africa diisoo woon na bu yàgg euh, mooy euh, lu ñu jàng si moom xale yi waa Banjul ba pare ñu séddale ko si àdduna bi yëpp mooy teach nañu about respect teach ñu about si biir musique xam naka nga nuyu jëflante sa waajur bu yàggul seen Seydina Omar la ko wax ne la kiram soo fa demee da nga faa fekk big love. so musa afi yongom dal luñ fi wara wax dal ci mom dal suñ fi wara wax dal tay duñ fi way dal ko la respect gon Gambia pour ñu ben si la wa mom moom tam yeb li la won lo tax mu daan because of musique Sénégal Senegal, digala gënoon na xaay ñun ñoo gënon na hay gaay boss. bos after afta mi tamit gaay gëna hay hay bi mom ni nimal na lay fekkal loxoy boromam so mi tamit dañ daan mbébét digala musa tamit dem tamit di play di do lot of music in Senegal lolu taxutoon mu bay gambi taxutoon mu ous gambi gambi moy xolam waaye dina dem senegal because of an industry music before we so big so dem nonu jale fa som yene message pour gambian ci di dégg xam ne ne ñoom mu ngi outside di def lu reuy so bu mu ba nga am ay jamono ci la ko suñ président bi Sénégal indi ko fi because soo ni ñu ngi am banxaas bu mag bo xam ni mu ngi Gambia dem benen réew so sila la ko suñ président bi indi waaw. mun naa wax ne maa moom 24/7 ñoo daan nekk Moussa suma nijaay la ba pare mu doonoon suma xarit doon suma star doon suma idol moo tax ba nga xam ne ay yu bari suma woyee dañoo ne <laughs> yesa Moussa Ngom la suñ ma gisul waaye fekk na ñu ne lu juddoo ci tàgga bu naawul jaaxali bokkam ñu ne nijaay olof daf ko yaaxa rek waaye ni la du nijaay de ni yaay la parce que moo sa yaaya bokkan day ak baay Moussa wéet nañ lu jeex saa su bindee woy kudi bër chef suñ toogee ci gannaaw man dina woy woy bi ba jeex du du everything man ku ko xamoon laa pare koko ko la, laa ñu yàggaa nekk na ñoo nekkoon di same sport um, parce que lopitaan la ma fekk mom fajar la won um, wai nu situation bi don deme, fajar boobu noonu sonn na torop te xam nga mine di dem si lopitaan am yo xamne soko ne rek science la day nekk you non everything docteur yang don't prescribe any kind of garab so mu ngi stress on dat suba ba bu a dee waaye at the end of the day boobu uh, génne rek dafa nekkoon tamit luñ sante yalla parce que sonon nga yalla su soxlee mom ku soxla ñaka loolu lañ di ka xalat rek ñu delawaat suñu xel ci yalla rek te xamne su yàlla bëggee képp ko bëgga ñaka but it was a very difficult moment it was a very sad moment ote lay loolu sax toel ci tooyal xol yi waaye dañoo dëgëral rek pour mën a wax bo octobre eleven bis boobu mom, beneen bis la Wah, waaw bu mu génn aduna nag definitely man time bu mu génn aduna exactly laa ko yëg because uh, sun sun drum abi, ñu daan playal drum set muy Cheikh Tidiane moo àndoon nang moom Dakar dem playal ji understand so that so boo xam ne ma. na sermon for doon play so man sermon man njëkk a text bi because the whole traveling am bi yëpp ñu doon chat ñu we ñu doon communicate on whatsapp suñ so yi nii ñu ngi dem play ñu ngi play ba num you know uh, whatever happen boom mu happen eh? you know he text me dama eewu eh, suba fajar gis text am bi you know ne ma boy paa bi de dafa ma dafa you know dafa sick on the stage ñu waaj yóbbu ko lopitaan and we lost him definitely and mu ma fekk fii kër but uh, teel naa ko yëg nag because of Cheikh mu fa woon and was a of the Humanity Stars dañ ma kool mais Moussa wàcca na liggéey yéen dama ko dama ko seetaan samedi fii yéen just for you la doon play àndaa ñoom Kéba Télo xam nga ma toog fii di ko seetaan just for ci suba si ñu kool ma ne ma Moussa génn na àddina metti na ma way nak am nga rek so soxla suñ borom soxla da ngay bayyi mu jël te Moussa niti yalla la Moussa eh, niti señ fallu la Moussa señ fallu rek la gom señ fallu moy ki maak mom yeb ci domam lañ jébbalu waaw moo tax nga dégg na woyam mu nan la man day jébbalu na man ci afia doy xalaatu afia mu ne la fàlliloo duma booleeg yambar mu ne yambar mooy ki gëmut liggéey xamut liggéey xàmmeewul ko baax kookoy yambar am nga di nga gis tooy nga naan ki yambar la déedéet kooku du yambar de yambar mooy ki gëmut liggéey xamut liggéey xàmmeewul ko baax kookaay yambar ñun ñun taalu bi sëñ fàllu lañ sëñ fàllu rek la ñuy noyyee moom lañ bugga moom lañ gis waaw luñ am gëm nañ ne sëñ Fallou ñu ko jox lu baaxul ci ñun sëñ Fallou du ko jox ak ça am nañu ko xam waaye xale yi tey xamuñ ko mooy li ma la wax rek su fekkoon ne tele yi benn weer ñaar wala li Sénégalais naan Dakar na door quoi léeg-léeg nga gis samedi sax ñu ne ñu fàttaliku démb lu bareen fi woon ku mel ni Patouré maa ngi fàttaliku 1970 something booba Sénégal seen musique yi yëpp ay Tumba la. amut sabar ci fàmmoon di di jouer stade di Bamar ba ay after eight yooyu toog light bi black out off nga dégg sabar yi ci biir woy bi mooy seen woy bi mu naan maam kati ñëwati na sabar yi réer sénégalais yooxoo ne sabar ci biir musique ci ci musique ñu ngi ko soog a gis waaye nag ñooñu ko gën a soxla mbay gay fay ñu ngi koo laaj ci kan la mooy Youssou Ndour fii lañ jaar 1970 71 yëpp nekk ci paature ñuy daal nekk màggadaan ci cex suñu woyee ba si digga abal leen waaye ñun li ñoo fayantoo ak liñ fonkut ñoom bañ ko jëlee dañ ko jàppaa seen téeméeri loxo Youssou Ndour mooy roi de te Gambie yaay roi de ci musique fii lañ ko jëlee ca taay mi màggadaan boobu Ousmane soose ak ñoom Badiaw ñoo daan pilee ca Tafa Jon lesewaaf mooy fi marché bi nekk fala kanku jéeri nekkoon Sénégal bari fii lañ jaar waaye nag ñoom dañ fonka la jaam tey su ma juddoo woon Sénégal am eighteen years su ma tëggee pot sax lu ma def su ma ootee grand théâtre mu gisee fer bi ñëpp ñëw fii nag mu nal bay laal asamaan si uti leneen lu kenn xamul sax mu leen gënal ñoom li am te misaal maa ngi ana artiste fi ne ko ñëpp dem nañ duma lim waaye ñëpp dem nañ ndax dañ discourage sonn na ci sa musique bu ko taxawal sa réew di def lu mu la ne li maa def sax jombut moo gën li keneen di def waaye bëgguñ sa ah li si kanam day rawli gut waaye li ma gis presen nii dañ war a góorgóorlu bu baax di fàttaliku ñi ñun ñii lañ am suñ leen fàttaliku ñun ñu dund dañoo ragal parce que dañoo ne suñ demee rek lii mooy xew dañ daan naan kenn waru nanan duy dee si olof moo tax ñu wax loolu olofal nanan du dee ndax dafa am lu fi dee bàyyi nit ñi di ko jëriñoo tey ndaanaan yi joxe gannaaw yépp tey man de dégg gisuma ñu leen di célébrer comme suñu jëkkandoor li ñoo def ah xanaa Gambia Talent maa ngi leen di ñaanal bu baax seen TV bi yéen ngeen toog ba di ko jëriñoo ci lu bare bare bare parce que yéen a ngi toppal lu bari at bu jot rek ngeen def lii man duma ne bu leen at bu jot ngeen fekk suñu laaj ni ñoom dina toog seen kër yi def ko te soo leen ko defee ni mel nii rek laa eh, mel. Moussa tamit Gambie dañu war xam lu mu woot waaw because of Senegal dañ dee gis ne ñoom tamit bu yàggul nii rek Dudu Njaay Kumba Rose duy wëy génn na àdduna waaye every time ñu ngay wax si moom xam nga di wax jaloore ñu def foofu noonu lan askan bi naka la ko bilee naka la xale yi folo ah, fuloyee cosaan bu mu génnee foofu noonu so like Moussa Afia Ngom rek ñun magi réew mi at kilifa réew mi nekk fii tamit ak gouvernement bi mang ngi leen ñaan ñu japp ci li comme yeen ni ngeen ni def ni ngeen ni def yeen leen ko yalla may ngeen ko def ay at yu bare bëri because of li ngeen def ni ñew fekk ci ñu yum salaam ñuy waxtane affaire yi Moussa dafa bax lool si askan bi pour askan bi xalé yi jóg xam kan moy Moussa Afia Gambia Wa suñ ñewé ci fana bobu nonu ñewé ci fana bobu nonu Gambia Talent TV la Gambia Talent Promotions ñom ñom kenn du ñom ñom dañ dañ anda faada bala faada di gañu nit ci bu diga ko Gambia Talent Promotion dañ anda faada Gambia Talent Promotion dañ anda faada di am mom mu ngee dunda même joxe gannaaw coloré boobu la ñoo lifin because olof dafa ne coloré gannaaw lay fété ñom bi mo dunda lañ ko téye xamné ki ku magala, di dem ak mom yi be yalla ñoo jël ko ba tay ñom ñu ngee gëstu njabotam di gëstu mbokam di gëstu ay mbiram di gëstu ay mbiram pour bu mu soo Gambia Talents promotion ñoom kenn du ñoom ak ñu associé tal nekk si yëpp ku demee ni ñoom Pa Samba Jaw ak ñoom Buhari ñoom Joog Malik ak ñeneen ak ñeneen si ñi nga xam ne ñu ngi see jàppa ñëpp ñoom ñoom wax dëgg ne yàlla ñun amuñ yéen ñu leen wax su dutoon yéen tey Fada dafa seey because tey yéen fi ngeen ko mën a àggale ñun famille mënuñ ko fa àggale suñ ko fa bëggee àggate ko ñu laxaw seen gannaaw waaye instead sa yéen a ñoo oone ñu kaay leen jot na kaay leen lii dem na waaye suñ ñëwee indi other side Gambia dañ bàyyi seen loxo suñ leen si tegee yéen Gambia ñi si des dañ bàyyi seen loxo tey nguur bi muy nguur mi sax waroon nañ tey Sada Fada bu célébrité bu ndaw si dëkk bi fii yaa understand Fada waroon naa nekk nit koo xam ne Gambia dañ ko waroon di célébrer comme Sénégal ni ko def Sénégal every year just for dañ ko ko defal Fada réeru Sénégal man su ma duggee Sénégal su ma ne man jarbaati Moussa Ngom laa lu ma soxla dee yomba dañ dee concentré si man sax woon ma leneen beneen ité boo xam before gay xam loolu ité ité ité man wanuñ ma so loolu rek wan na ma ne ma am na yëg-yëg daal si biir dëkk well it's like it's important for Gambians as a whole to respect and celebrate our living legends not before they are gone when they are gone because let me tell you one thing okay I need to show you support before you are gone. You know, I don't have to wait until you you're gone and I start acting like, yeah, I was so in support of when we know that you are not. You know, when the person is leaving, you know, do your utmost best to support the person is important. You know, don't wait until he is gone and then you start in acting fake on it. You know, support it here or after. Because when the person is gone, when he is leaving, you supporting him. When he is gone, continue supporting. Try creating certain things, events that will link to him because he got a family in here that we have to support. So don't wait until the person is gone, you know? So it's important for us to respect our legends and, you know, because somebody who was who was um, making you happy through music, you know, try to make him happy when he is gone, because there is a family that he left here, and there's there are ways that you can do to support his family. It's important. That would make the person happy down there in heaven. suñ kilifa yi nañ leen uh, utal ay toogu na gaam yee jéem a am toogu yoo xam ne du nit ki ba tey moom moo ko daajal boppam waaye xëy na nit ki moom moo ko yeelool boppam te dafa am ñoo xam ne dañ fi def yoo xam ne si dëkk bi elo nen yu mel nonu ñu tegal len togu yo xam understand nga na nek ay togu kilifa yo xam xam nga kilifa bu nek dëgg dëgg di fa am place understand nga ba nga xam tay xam nga lu bokk ci yow understand nga dina fa mun feñ dina fa mun aksi xam nga mu nek lo mbiri dekk bi la understand war no mun gëna jappalé euh gëna jox cër duma ko wax jappalé gëna jox cër lin mom understand nga you know because xam naa ne euh, am na ñu bëri ñoo xam ne xëy am na fu len am na fu ñu leen seetaan te xëy na waroon leen waroon leen fa a seetaan waroon leen leen a teg fi ñu leen war a teg ba nga xam ne tey waaye sant yàlla ne xëy na tey lu mel nii am na yéen a ngi jóg di dox understand nga di di di waxtaanee mbir yi ku mel ni Moussa ak yu mel noonu yëpp you know loolu dafa bokk si yu am njëriñ si dëkk bi. waaye daal war nañoo gën a mun a jàppale gën a support leen moom. loolu li nga wax noonu gën na maa tax du Musa Ngom rek maa si ñoom Koto Ngom muy magam ñoom Koto Ngom ñëpp def nañ fi seen waala and uh, macha allah ñu ngi waaj even suma département bi sax si boppam defuñ ci lu bëri tu tell suma boppa laa ko njëkkee muy ca nguur gële nguur gu ees gi nag bi mu toogee xaw nañoo tane because ñu ngi xalaat li xalaat di li mel ni def li ñoo ooyee posthumous award excellence in the arts award muy ñi nga xam ne def nañ fi dara ñu ngi si kaw planning yooyu noonu ñu ngi si waajtaay doo waaj nañ ko ñaari at a ngi nii ba ñu ngi utale ji ñetti at ba léegi nuñ koo am waaye incha allah xam naa ne comme que ne mu ngi si biir xol yi mu ngi si biir xel yi dinañ ko ami nag dafa yombul pour am ko nag wax dëgg. moo tax affaire yi demagutoon noonu waaye ñu koo séentu te su dul fii waa dëgg la fu tut di communauté. su ma bëggee wax si moom mun nañu toog fii at te du pare waaye lu ndaw rek classé compi rek wax la si moom am he was a great dad ku bëggoon njabootam ku bëggoon doomi aadama ku respecté woon doomi aadama and most especially ku bëggoon ki ma tuddee muy mbake di dom si Serigne Fallou Mbacke yang ko um, papa la won bu bu mut papa uh, papa bu jambar la won papa bu mànd la woon teg ci laat ah, ah, yang ngam si yow si man moom suma maam la suma maam la woon parce que man ñu ngi xamante ñu wax teeru xam nga dañ daan dégg turam yàlla dogal nag ñu nekk si ñu nekk xale yoo Eh, Gambia fii dañ am wërsëg pour play moom bu ñu nekkee di play teer ba benn de laaj ma ma wax ko wax ko fi ma jógee dama yow moom sama suma gaal frère kon xam nga suma maam <laughs> so noonu nag lañ nekk di demee ba pare ñu bokkoon koñ waaye moom dafa nekkoon koo xam ne kenn la woon ñun daf ñu yokkal eh, expérience moom comme ñun ñi nga xam na ñoo nekk xale ay xale nekkoon si baan bi ñoom Keba moom moom moo yar Keba Sénégal waaye ñun fii lañ xamante ak moom yokk ñu lu bëree bëri bëri soo bàyyi xel eh, just for you sax bu ñuy dem di play ak moom loolu warutoon na nekk on dit ten comme eh, dafa waroon a nekk eh, on dit taat la waroon a nekk waaye bugg a dëkkaam wone lu nekk dëkkaam moo taxoon mu bañ ne gars yi du parce que gars yi dañ bëggoon ñooñu baax leen foofu super jamono suuf moom moo bañ ne dafa am lu mu ko wane soo bàyyi xel foog naa ne ñu ngi ko doon wane jos TFM ñu doon explain loolu dafa am lu mu bëgg a wane loolu mooy woon ñun soo daf ñu bëggoon a dugal yoon def na ko nag ba pare mm. waaw def na ko nag ba pare dem bàyyi ñu fi loolu ah, naka la mel si yéen dafa mel ni rek Moussa daf doon wane Sénégalais yi ne man rek foog ma ma ànd ak sama ay tiim. la ñoom parce que ñoom dañ foogoon ne xam nga rek Gambie ñoom ñu ñu bàkkee dañ foogoon ne xëy na dañuy dem rek def benn affaire waaye nag yàlla dem def na ñu dem am fa ndam boo xam ne ñun dañuy wàccee sa te suñ time jotul bés boobu dañu wàccee te suñ time jotul which means ne luñ fa def moo baax. Hmm. tëj na seetaan ngeen ko bi vidéo si yeeg yooyu waaye yëpp nag yàlla ak moom ba pare mu doon professionnel boo xam ne ñun ñun xam man de xaw ma woon ne sax feebar na ba si kaw stage bi bu mu éggee parce que laas morceau bi si laa soo xam ne dafa feebar ndax am morceau bi ni ñu ko dee piyee daf dee xala gaaw tuuti soo mu ngi yéex ba maa ngi naan suñu droma bi du gaaw tuuti si la ma gaay di joxoñ paa ma def nii ma gis mu ngi toog ma xam ne dafa feebar moo tax gaa ñu drop ko wàccee hmm. ko waaye jàmbaar la woon ak li muy feebar yëpp mu ñoo woon ne moom la hmm. professionnel ñun nag jàngee nañ ci loolu boo yi nga xam ne ñoo fi nekk dañu war a jàngee si loolu ndax du woon ku ndaw hmm. waaw du woon ku ndaw si bagage yi bala nga ko xam nga demoon ba Sénégal ndax dëddee foofu fees la del te ci nekk dix mille dafay maa ngi fàttale ko buñ buñ ba wàcca di delloo sabat buñu àbbi woon am benn waaye fekk ñu ko dañu laaj ndax dafa ba pare grand dafa joué ba pare ñu ne ko mu mbéj boppam dem ndax moom la bëggoon a seetaan si ñun loolu yàlla bu baax amee ku mel ni moom waaw mu yóbbu ñu ba Sénégal gaañi liggéey leen gaañi kon nag gaañi liggéey leen amanna no jo hamne ni chonno wanai limeti wanti ligebi sunu mamni defna nuko kon men len anda bolo te jappati te sito gañi bore len bore len gañi ligey len akaza Oh, Lord of mercy of only soul. Musa Afiangam, Akasa, may your soul rest in peace. Musango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 washington tem kaw unorum mak dibi tende bampani vinkre pisiyam puyer ko mkatu lemp mkati kata mkaw unorum mak tuseni kuchim pichanga timu ebe nirano bu tingiti ku tingita ja tukan legi kitub ki pichanga timu the washington covid-19 relief fund ika buko wulu umil uncham us dollar unchamu ichitiba tiet ndika luk te birka ye pupulu koko kambe ku na bukul birka fakul birka wulkul pisiyen te birka wulkul ice te ko irka noranu wi uchim ngalka kai katar ucha kumundo bitendi bi mpurpu tip ki pichanga timu purpu kabul o uchim purat mpurpu pijawkul ba pichen ka timu purpu pi kabitendi ti ngaldi monjakul play application di kajotiti pli november pli september gunun taja ngene kuwas katipu te pli november gunun taja ngene ngunu gubaki te koi chitibuluk achi free uchim ngalba juraru legi legi legi legi tipanki bon funa ba nyaka nyaka ki wo wak ko juraru legi muy fanaan ak kuy wër ku ko wéetali xanaa delloo bunt gi war la naa boole yaa Fatou Guest House tijjil na leen bunt bi ñu leen fa am ak ñaari cabinet salle yu yaañña amal leen li nga xamante ne mooy cabinet ak salle ñu ngi leen amal AC ak fan salle bi nag lépp li ngeen soxla am na fa sofa yu nooy ñoo fa nekk TV baa ngi fa cabinet boo dugga lal yu nooy leen leen fa amal amal nañ leen fa AC ak li nga xam ne moom mooy faan toilette yu set wëcc amal nañ leen fa kitchen microwave fridge beneen bu baax dama ne teraanga day mut moo tax taxit Yavaatous Guest House amal leen extra kitchen lépp lu ngeen bëgg a togg mun ngeen ko toggee si gaas cooker bii nii kuy xalam di si jaayu nag barke bi yaay borom amal ne li nga xamante ne mooy ndox ak courant 24/7 bu leen tiit bu leen ragal bu leen xoof ndax amal ne lii di CCTV caméra seet si leen ñu si Farafenni gannaaw garage yi base bi Kawur highway very clean every day am na cleaning service réchaud bi amul fenn Adja Fatou Guest House teraanga àdduna bët kon nag seet leen ñu